quelque mën nañ jàpp ay gaz de de bonne foi bu président Macky Sall pour pour indi ak dal non yaakaaruma ko mais dans tous les cas euh, euh, fi mu toll nii euh, puisque ñëpp accepté nañu dem aux élections mhm. ñoom Bougane nag ñoom Fadel Baro ñu doon kaas sax kenn déggatu leen mhm. daanaka donc je pense que si intérêt président la mu bëgg ñëpp dal ci intérim la ci intérim la. te loolu même bu nekkul élection sax ki nga xamante ni moo jiite réew mi. Hmm. intérim la pour stabilité am. Hmm. parce que bu stabilité amul économie mënul dox. am na ko hmm. koy wax sànq. non te ci loolu lañ bokk na ci li ñuy mesurer président de la république. Euh, mais xam nga man Moustapha. oui su ma jëlee kaaw Cheikh Oumar Diagne ak Cheikh Abdou. damay def la différence. Euh, man dama jàpp ne Cheikh Oumar Diagne. dañu ko tooñ dans la mesure où euh, dossier am waruloon a dem en instruction man bu nekkee ci micro bi laa toog nii léegi. Mhm. wax ci loo xamante ni nit jàpp na ne dama ko tooñ. loolu amul instruction loo xamante ni mun nañ koo juger léegi la parce que wax jooju. jarul mhm. ngay enquêter ji kenn. Mhm. jarul ngay laaj kenn. mun nga ko mbokk bu ñu jàpp fan yi dafa am lu mu wax ci benn euh, chaîne YouTube mais gars yi dañ koy àtte dès la prochaine audience. parce que li mu wax mi ngi ne fang ñëpp dégg. très bien voilà. comme ça noonu la waroon demee. Mhm. d' autant que euh, man dama jàpp ne ci émission boobu. Mhm. Euh, Cheikh Oumar Diagne lu mu wax ak li ko euh, Djibril War tontu. bu nekkee am na ku kuñ ci waroon a jàpp pour man Djibril War la waroon a doon. <laughs> man loolu laa jàpp. Mhm. maintenant par rapport ak Cheikh Abdou. le député. kooku dafa tooñ. ñu toññar bi ko. dafa tooñ ñu ñëw tooñ ko ci kaw tooña man Cheikh Abdou bu doon dañ ne dañ ne jàpp nañ ko euh, lundi. Mhm. jugé nañ ko. mercredi mhm. man du ma ci am lenn lu may wax. parce que lu mu wax. Mhm. tegu ko fen président la république ñu d'accord uñ ci ay politique mais am na yoo xamante ni duñ ko ko wax. du du pré du Macky Sall mais institution. bi la bi la. du dëgg. léegi bu nekkee. Euh, dem na ba euh, ñoom ñaar ñu génn ci euh, euh, situation boobu. Mm-hmm. <laughs> li ñu mën a wax mooy monsieur Fall lu mu wax dañ naan alhamdulilah. Mm-hmm. mais dans tous les cas ak li nga xamante ni moom lañ leen tegal nekk nekkul loo xamante ni véritablement surtout dans le cas de Cheikh Oumar Diagne. lu ko mm-hmm. waroon na mën a yóbbu kaso ba ñu ne def na foofu ay mois. loolu c'est incompréhensible. mais Moussa Fall dafa am. rapidement loo xamante ni dama ko bëggoon quoi. ñun au Sénégal ñu changer le mot provisoire bi ñuy utiliser. maanaam ñu ñu suñu biir ñu waxtaan. Mhm. ñu wut benn moo boo xamante ni bopp. <laughs> waaw suñu moo bopp boo xamante ne nii. Mhm. suñu biir rek lay des quoi. ñu ne bu ñu nee liberté provisoire quand même. Mhm. mais est que c'est nga ñaata sénégalais ñooy dox. en liberté provisoire wax bëgg dem Guy Marius Sagna mi ngi ci ñaata liberté provisoire mi ngi ci ñetti liberté provisoire ñetti liberté provisoire Oumar Sarr ministre ngi ci liberté provisoire waaw ba Samuel Sarr ba El Hadj Malick Sall ñoo ñëpp te amu ci kenn koo xamante ne nii Bougazeli il a vingt cinq mois de liberté provisoire alors que dafa dem procès <laughs> vingt cinq mois parce qu'il est de l'APR mais mais mais mais non non mais xaaral hmm. bañ koy may liberté provisoire dañ ne pour des questions de santé de santé oui raison médicale question de santé hmm. <laughs> waa ji wër na fi ba nu mu doon naan day campagnal euh, Aliou Sall à Guédiawaye mhm. te jusqu'à présent personne ne parle de procès léegi nag loolu nan la mën a nekkee ñu dem ba dans un pays mhm. justice da lay jàpp toppee la dara ñu yóbbu la prison ñu jékki-jékki génne nañ la affaire bi yem fa noonu noonu noonu noonu quoi jamais de procès jamais de procès loolu nan la mën nan la mën a nekkee te bu ñu toogee Moustapha mhm. ba ne dégel moo am parce que c'est le président de la République qui le veut mais accepté nañu ne séparation des pouvoirs en fait amatul. amul te c'est ça qui est dangereux. accepté nañ ko entériné nañ ko d'accord ne. Mhm. séparation des pouvoirs warul am. donc président de la république comme ah, que situation bi fi mu ne nii arrangé na ko. Mhm. war na mën a. Mhm. mais libérer tout le monde. te un pays si ça marche comme ça. déjà bu ñu waxee loolu rek magistrats yi ñoom ñoo waroon a njëkk a xoolaat seen bopp. les magistrats en premier lieu. parce que bu ñu naan. magistrat yi dëkk bi amul justice boo faree fii duñu la def dara boo faree fële loo mun di wax nga am problème. Mhm. maistra yenn yi di ko bañ. mais bu lu mel nii amee ñun ñëpp ñu d'accord ci ba ne. Mhm. la te pouvoir bi moo ko bëgg mais ça veut dire que les mhm. magistrats. Euh, peut-être bu ñu waxee lool c'est parce que le, le procureur de la République bi nga xam ne euh, ci ci ndogalu enfin ci ci kilifteefu ministre de la justice la nekk mën nañ ko jox ay instructions même si indépendant. mais le procureur aussi peut apprécier de lui-même exactement waaw il peut aussi apprécier de lui-même sans qu'il reçoive des instructions. très ah, mais mais juge bi nekkul ci mm-hmm. beneen société la nekk société Sénégal bi la nekk. Mm-hmm. donc moom bu jàppee ne te wax naa ko fi waxati ko fi le juge nekkul ne day xool asamaan si rek ne décidé naa lii wala décidé naa lële. Mm-hmm. lum la mën a wax ci code pénal la koy tënk wala ci code de procédure pénale mm-hmm. donc moom bu jàppee ne kii nii kat li ñu koy toppee nii du dëgg du yoon mais war na ko mën a bàyyi mu ñibbi mm-hmm. sans mu jot euh, nu mu xaar mu xaar apaisement oh, mais très mais très bien loolu te xaar véritablement ci ci ci ci ci justice alors dañuy avancer mais Doudou avant ñu en une minute euh, parce que euh, Sidi Bara Fall daf ko wax sànq maa ngi koy wax Bachir Bachir Diré daf ne am na yoo affirmé yoo xam ne tegoo ko ci benn investigation ma ne parfois journaliste su amee possibilité def de l' observation directe dem xoolal boppam gis am na droit ne lii laa gis mais est ce que oui exactement mais mais est ce que mais est ce que le fait d' par exemple je ne sais pas à Grand Yoff gis ñu fay manifester wala à xaar yàlla gis ñu fay manifester day tekki taxaw ne ñu newoon ci mbedd mi manifester yëpp amu ci kenn du ko am arme Mm-hmm. am na ku may fàttali ne Sidi Lamine tamit mu ngi woon liberté provisoire. xam nga Sidi yàlla jëlee. aywaay nit ñi dañuy bëgg a limité lu ñu xam ne yow ñun suñu charte liggéey limité wuñu si. Mm-hmm. xam nga su ma déggee nit mu naan journaliste yow yemal si place journaliste yem si ay fait mm-hmm. may jàpp ni toi tu es d'une inculture extraordinaire oh, parce

le devoir d'analyse et de commenter. Mhm. j'ai lu quelque part d'ailleurs dogguma la benn jàngalekat journaliste bi tur bi moo nekkul sama bopp tubaab la mu ne l'analyse l'analyse dañ ko waroon jox le la même valeur que les que que que du factuel exactement parce que tey l'analyse c'est les c'est les gens du commentaire la bokk mu ne dañ ko waroon jox même valeur que les gens du factuel mais loolu charte de Munich mais mais loolu charte de Munich moo ko tënk mm-hmm. mm-hmm. te moom mooy moom mooy moom moom mooy référence bi mm-hmm. waaw léegi ma ci affaire may xool rek te du ma wax doo loo xalaat man may wax parce man lépp lu may def dama koy teg ci investigation. xam nga dama ko fi wax Sénégal yëpp di ma dégg ma ne le procureur. li mu wax amul. mooy ci affaire sur l' affaire Ousmane li mu wax amul. Hmm. et je le redis te ba ma ko waxee ba léegi bind naa ko def naa ko vidéo te kenn mënu koo dindi il a dit que textuellement. Hmm. que Ousmane ñu ngi ko toppee de Sindian. oui Sindian à Grand Yoff. ma ne koy loolu amul. parce que waa ji yéen da leen réeru da ngeen benn coup de téléphone woo ko xam ni mu ngi woon Dakar dem dikk mais xam xam nga le procureur bu ñëwee na nit kooku ñu ngi ko topp ak fait d'armes mhm. ak ni mu mel yëpp yow nga bàyyi ko mu dugg kër ayib passé kër ayib dugg Kaolack mhm. dugg Kaolack dugg Mbuur mhm. yow dugg Dakar réer la mais loolu irresponsabilité boobu garaaw ba pare nga ñëw ne on l'a trouvé avec des billets de la Sierra Leone de la Gambie y avait que bu si nekk benn billet la bu si nekk benn billet la donc nu ñu présenté affaire bi jël ko ngandal ko bopp ba léegi wax naa ko de newoon naa leen l'affaire laa du avancer du reculer du avancer du reculer te ba tey mhm. avancer wu reculer wu d'accord d'accord léegi mhm. léegi mhm. Euh, investigation pour investigation ñoom ñoo wax ci seen presse ñoom si seen eh, presse. waaw non mais mais loolu ñaari presse fi am au Sénégal non dañu am seen i presse. mais ça tout le monde est d'accord avec a un problème avec Bachir Bachir il est en tant que journaliste ou en tant que. mais je revendique et je l'assume je revendique et je su dee seen presse nga bëgg a tontu. waaw ah, mais bàyyi ko mu wax seen presse rek. xam nga bu ñu waxee s'il vous plaît ça bi ma nekkee. <laughs>

mais pourquoi am na ñoo xam ne il faut ñu dem uti ay gros bras pour protéger leur organe parce que sénégalais yi si boppam ñooy catégoriser. ne ñii fii lañ bokk ñii fii lañ. fii lañ bokk ñii fii lañ bokk. loolu loolu kañ c'est connu c'est ñëpp ko xam. Mhm. xam nga tey boo amee une presse boo xam ni. Mhm. yow boo yeewoo suba teel. loo man ma jàng ma ne. Mhm. man ma jàng. ñu ne quand une affaire est en instruction amul benn journaliste boo xam ne am nga droit traité ko. quand une affaire est en mhm. man ma gis benn journal wala ñaari journaliste wala ñetti organe mhm. yoo xam ne yow la ngay waxanteeg si yow li ngay waxanteeg juge bi. oui à la minute près suba ñu bind les minutes. te dara du leen si fekk noo defal nànk rek te dara du leen si fekk. Moustapha Diop bi fi amul nijaay bu ko defee suba ñu woo ko. Ah, non on a appelé des des journalistes de Sud Quotidien donc a eu des journalistes non Bachir des a pas dama ne dama ne xam nga loolu c'est connu l'histoire elle dama ne am na ay journalistes yu fi bind ci affaire armée ñu yeewu suba teel ñu jàpp leen auditionné fii am na ñoo xam ne dama ne loolu kenn mënu koo dindi une affaire qui est en instruction le journaliste n'a pas le droit hmm. de le traiter surtout nag hmm. nga dem jël les minutes d'une audition kooku sax yaa ngi tooñ la ne ja PV yëpp nga sotti sotti loolu allez-y allez-y en fait c'est-à-dire que bon on va pas faire un cours de journalisme je vais pas ennuyer Ousseynou non non c'est pas ennuyant c'est intéressant waaw on va pas ennuyer les téléspectateurs c'est-à-dire hmm. que euh, Doudou les journalistes dañuy xëy Moustapha def nga ko def naa ko. Mhm. xëy dem commissariat. ñëw foofu noonu outil xam lu fa xew. nga bind. mais aussi boo koy bind. tu mhm. prends la précaution de ne pas citer in extincto. Mhm. le PV. parce que c'est ça l'intelligence. il faut savoir que da ngay yor PV. nga exploiter PV. donc loolu moom kenn du ko bañ a. mais mais Bachir c'est pas l'objet de notre yaa ngi wax na ñu bañ a àndoo ñuy sera est-ce que est-ce que un PV d'audition. oui man Moustapha Diop ma yore ko wala Bachir yore ko. est-ce que ça suffit pour dire que ça c'est l'information vérifiée. non c'est un début d'information. voilà non on est d'accord c'est-à-dire que c'est un début d'information le PV parce que. tu pars d'une information nga creuser ko nga yokk ko nga wuti leneen donc sur ce point on tout à fait d'accord oui. le PV après est-ce que tu dois te fier seulement au tamit hmm. loolu tam beneen cas la xam